Quotidien nañu moo doon gàmmoom gu mujj moom Macky Sall ci Tiwaawan en njiitu réew jaaree na ca woowale tukki nag fàttali la mu jot a liggéey ca dëkk bu tedd ba loola it la Dakar Times xëy def dellu si ci li Macky Sall jot a def ca Tiwaawan loola nag Tiwaawan bég na ca lool buñ sukkandikoo ci lii ko Quotidien mi ñu yeggee cant ak ngërëm yi xalifa bu Tiwaawan yëkkati jëme ci njiitu réew mi Macky Sall Tiwaawan mbégteem foo ko natt weesu na ko ndax li mu am ci nguurug Macky Sall gi ci wàllum infrastructure di jumtukaay mësu koo am waaye ku def lu am lu rëy ndax lii Quotidien cent mètres carrés la Tiwaawan yëkkati jox ko Macky Sall ma ñëwoon tàggoo si tàggatoo booba gannaaw Tiwaawan Macky it def na ko ca Njaasaan ak ca na ba bul sukkandikoo ci Le Témoin waaye Le Soleil nee na Tiwaawan daa beral loxo Macky Sall ca tertu ba waaye itam kàddu yenu fa yëkkati ndax xaalif général bi Serigne Babacar Sy Mansour Le Soleil nee na rafetlu na lool taxawaayu Macky Sall rafetlu itam jikkoy rafet yi mu gis ci premier ministre am bii di Amadou Ba te Macky yóbbu woon ko fa ko ay di ko dëggal ne Macky dooral te dara xewagul njiitu réew mi l'observateur nee na dénk na premier ministre am bi xalifa yu tiwaawan njaasaan ak Medina Baye sàkku it ñu ñaanal ko waaye nee na ñaan gi am na solo buum tee nag bés ba bu jotee ñu dem wote ñaan bi xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour yëkkati jëme ci Amadou Ba moo waral yéenekaay yi di l'info ak le quotidien jàpp ne Serigne Baye Sy Mansour woteel na Amadou Ba ba nuppi yéenekaay yu jaañ bi nañu moom kay daa ca digg Sall kay daa jàpp ci loxol kandidaawam bi di premier ministre am yóbbu ca xalif généraux ya ni leen mi ngi mooma war a wuutu ñaanal leen ko te jàppale ko enquête ne kon Macky jokkalante na leen nga yàak Amadou Ba ca këru diine ya la tribune ne ko moom kay campagne la ko defal gu leer naññ ca Tiwaawan Tiwaawan googa la fa xew lépp source a mi ngi ko tuddee gàmm bu ala daw me ngir Benno Bokk Yaakaar ndax yéenekaay bi nee na gannaaw ba ñu sante gërëm ak ñaanal président Macky Sall Amadou Ba moom fi mu sax bëtu njiitu réew la ñu koy xoolee ndax ak moom laas xëy dañu wax ci xalifa bu Medina Baye Cheikh Mahi Niass tuddee ko la xalif organique joxooñ ni mu duggalee loxoom ci réew meek ni muy doxee woote gi muy woote ngir nit ñi liggéey ànd ak yar waaye yéenekaay bi gën a teg gëtam ci liggéey yu mag mu sumb ngir Medina Baye ak xam-xamam bu kawee bi ko àddina bépp nangul la tribune booba jamono mel ni ku naan ñu Ousmane Sonko moom bañ bañ nangu yéenekaay bi ne seppi nanu ko ci list électorale yi waaye loola mooy jéem a ndax du ko teree feeñ yéenekaay bi nii la junjee taxawaay bi Ousmane Sonko wéy di am ci làngu politique gi ñoñam jàpp ko moom ci boppam teewut foo tourné sonko sonko ji ma ngay jolli la tribune ne li waral ñi koy safoo ak ñi koy jàppale topp ci ginnaawam mooy am yaakaar ci moom ngir mu soppi ni réew mi doxee dakkal fi luubali koppar te dara du la ci fekk waaye itam teggil askan wi dund gu cher ak jafe-jafe yi nu nekkee dund gu cher googu ci le Sud Quotidien xëy wax ne askan wi tokki na damm na dee na ndax njëg yu dëkkee yokku njëg yooya fanu leen àppaloon tënk leen fa amadu Touba ñaan nee na tegootut fenn moo jiite service régional du commerce bu Ndakaaru économiste ne état dafa war a xool ni muy subventionné économiste bi di Hadjibou Soumaré wuutu woon Macky Sall ci primature jamonoy Abdoulaye Wade wuutu ko ci palais bi la bëgg buñ sukkandikoo ci réew mi quotidien mi ñuy xamal ne premier ministre ba woon rëdd na ba nuppi yoon wi mu jàpp ne bu ca jaaree dana jiite Sénégal te candidature am bu ñibbisee ci tukki wi mu ne dana ko fësal Walf Quotidien yittewoo candidature yu bari yi fës jëm ci élection présidentielle bu 2024 ne bu ñu mayuwul yëf yi dana pëccëxoo jaxasoo xam lu kenn indi teg ci loxo askan wi waaye yéenekaay programme yoo xam ni yenn ci candidat yi ca la ñu sukkandiku ba askan wi jox leen bopp Karim Wade moom ca PDS léegi tey ñu noppi koo jox bopp ndax la tribune na yéex a ñibbiseem gi am na militant yu bari dañ caa jaaxle ba tàmbalee ñàkk yaakaar ci ay mbiram la tribune ne découragé ci boppam la gaa yi Karim Wade yi def gaa yi Ousmane Sonko yi daa ni seen xel mën naa dal ndax ci 24 heures professeur Ndiak Fall pénaliste ma nga li nu ko sepp ci liste électorale yi du dëgg yoon teg wut fenn moom professeur ñu fekkati ko ci Vox Populi layal seppi gi nu seppi Ousmane Sonko ci liste électorale yi seppi googa nag ab décision administrative cotte la te mënees na koo dabu ay kàddu yu gëstukat bi Mamadou Salif Sané yëkkati ci biir bés bi le jour le regard moom gis ne pëccxoo dëgg ak coow lu dul jeex moo juddoo ci seppik Ousmane Sonko ci liste électorale yi waxtu woowa ñu koy seppi ci liste électorale yi nag source a ñett ci ay farandoowam teg nañu leen loxo tuumaal leen lëkkaloo di tere leen ñu nekk ci retour de parquet takk der yi danoo njort ne ki naan Nafissatou Gueye moo leen jox koppar ñoom ak yeneen ndaw ngir ñu defari cocktail molotov indi fitna ci réew mi waaye fitna nakar ak tiis mënta weesu suuxuk batalo joola mi am ñaar fukki at ak benn tey vox popule ne daana ko fàttaliku ci armeel yu mbaaw ndakaaru ak sigicoor waaye ci sénégal moom ba tey mbiram joola lu lëndam la fi ci gëti yor yoor bi yéenekaay bi ne ñaar fukki at ak benn ngi nii kenn xamul ana lu waral suux gi kenn xamul it lu cay wàllu état njabootu ca loru kenn toppatootu leen jafe-jafe koom yi juddoo ca boobale jéya ba tey it mi ngi fi tegee waaye révélation naan ko ci waxtu fàtte ko moom la joola ak jéye ji mu fi juróon ci la ñu toll suñu gayndee jigéen ñi ñoom toll nañu ci barrage yi gannaaw ba ñu daanee Mozambique ci wàccaayu CAN 2024 coupe du roi des champions ba ca Arabie Saoudite la tribune nee na saajo Mané defati na fa jaloore ndax may na ndam équipe am Al Nassr dana am ndamam déet ci kanam doom Falaye Baldé bi sunu làmb ne ak lu mën a xew Modou Lo moom gannaaw ñeenti at ak ñeenti weer yu ko kenn tegut gët dana janoo ak ki sës rëkk ci moom ci làmb